الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ci suñu yeneen tàmba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca ngal la waaye sax ci loolu ba dee fekk leen ci gannaaw loolu mbokk jullit mi ngi ñuy tiim ñu bis boo xam ne bis bu màgg la bis bi ñuy tuddee bisu arafa muy nar a ñëw alxames jii di ñëw yal na yàlla yegge lañu ca bis la boo xam ne ak màkk gii yàlla baaxe lenn ci ñun ñu teew fa mooy bis bi gën a màgg ca ak màkk googe bal yonent bi alayhi salaam daana wax ak màkk dëgg-dëgg daal buñ koy wax mooy dem taxaw arafa loolu kon di bis bu màgg kii nga xam ne mooy Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu benn ci borom xam-xam yahudi def na ko ay Omar am na benn aaya bu muy dégg ngeen koy jàng ci seenu téere su doonte ne ci ñun yahud la wàcc day bis boobu dañ koy def bisu feet Omar na ko aaya ba muy ban aaya mu na ko mooy aaya bi suñu borom di wax ni bis na ki tey matal naa seen diini mottali seeni xéewal gërëm lislaam bi seen diine omar na ko man day xam naa kañ la wàcc xam naa fan la wàcc amma kañ la wàcc mi ngi wàcc ci bisu arafa mi ngi wàcc ci bisu aljuma fekk yonent bi alayhi salaam ma nga ca kaw gileemam di xutba doomu aadama yi yàlla dogal bisu arafa nekk bisu iid ñeel ña nga xam ne dañoo nekk arafa ba lislaam da leen di tere ñu woor waaye bisu àjjuma it nekk bis boo xam ne bisu it la ci ñun julit ay yéen mbokk julit xam leen ni arafa ji nga xam ne moom la ñuy séentu yàlla dogal am suñu mbokk julit yu ñu fa teewal suñu yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ci lu saxaaba yu bëri nettali bokk na ca soxnaam sa Aïcha radiyallahu anha sunu borom yàlla dana leen jege nam ko soobe dara melul na moom jalla wa ala naan malaaka yi ay yéen xool leen sama jaam yi ñi ngi jóge ci gox yi sori ak seen coono ak seen tilin yaakaar sama njëggal yaakaar sama yërmaande maa ngi leen di seedeel ne ñii day doon naa ñoo xam ne ñu leen njëggal lii mbokk di mbir boo xam ne nii mbir bu màgg la képp ko yàlla subhanahu wa taala wërsëgal nga teewe la nga xame ni nii moom mooy arafa boobee loolee di mbég bu rëy bu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégal waaye nag mbokk la nga xam ne mooy milliard ak nangam ba teewul arafa ca ay julit lan mooy seen wàll ci bisu arafa ngan la waay bég leen ci yërmaande yàlla ju yaatu yërmaande yàlla ju yaatu jooju mooy bisu arafa dana fekk julit ñi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf muy bis boo xam ne dañ caa war a góorgóorlu luñ mën ci jëf ju baax ñu def ko ca waaye rawatina ñaari mbir yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam dañu koo joxoñ ñaax ñu ca mbir bu njëkk ba mooy lan mooy ñu woor la nga xam ne mooy bisu arafa bis bi nga xamee ni nii ujaaj yi ña nga bàyyi seeni kër dem taxaw arafa di woo seen boroom yow suñu yonent alayhi salaam tëral na leen foo mën a nekk ci kaw suuf yow bis boobu ko ñu def ko bisu koor saxaaba yi di ko woor ba benn bis ñu laaj ko na ko waaw yu mu yàlla yónni woor bi ñuy woor arafat moom lan la ñuy jural mu ne day képp koo xam ne woor na ko at bi nga xam ne génn nga ko ak at bi nga xam ne yaa ngi ci jublu la nga xamee ni ni mooy bakkaar yi nga cay def suñu borom yàlla ci mbaaxam da la koy baal loolee mbokk di ngëneel bu rëy ca mooy yàlla subhanahu wa taala baal la say bakkaar donte ne ni la ca borom xam-xam yi di wax mooy fokk yàlla dëppale julit bi mu tuub ndax yàlla du bari ay bakkaar lu dul ne da koo tuub loolee di ngëneel bu mag ndax kat bàkkaar yàllaa koy nattoo ku mu neex waaye tuub yàllaa koy jagleel ku ko sor loolu kon di mbir boo xam ne loolu lañ wax ci wàllu googee bokk na ci loo xam ne abdullah ibnu omar am na benn waay bu ko laaj na ko waa wóor bi su arafa moom ban njëriñ moo ci nekk abdullah ibnu omar na ko ñun day ba yonent bi dund jàppoon nañ ne woor bisu arafa dana tolloog woor ñaari at yu tegaloo loolee mbokk di ngëneel boo xam ne yii tamit daanaka ngëneel la bu tegu ci ngëneel bu njëkk ba xadis bee day wax dañ lay baal la nga xam ne mooy bàkkaar ñaari at am na ibnu omar moom daf na ñun day jàppoon nañ ni woor bisu arafa mi ngi tolloog nga tegal woon ñaari at di ko woor ñaareelu mbir bi moo ko julit mooy alxames jii di ñëw di bisu arafa ndal la way góor ak jigéen fu ñu mën a nekk nañ bari lool ay ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaan gi gën nga doomu aadama yi ñaan ci at bi yépp mooy ñaan bi nga xam ne da koo ñaan bisu arafa ñaan ba nga xam ne da koo ñaan bisu arafa ay yéen nga ko julit xoolal yonent bi alayhi salaam ba mu ajee makka bam jullee tisbaar daa boole lii di tisbaar ak takkusaan julli ko gannaaw ba mu dem ca taxawaayu arafa ba fi ñuy tuddee jabalu rahma daa di taxaw ca kaw gilimam nga yëkkati ay loxoom di ñaan yàlla gannaaw ba mu jullee tisbaar di ñaan yàlla di ñaan yàlla ba baa jant bi so mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam loolu dana jege ñeenti waxtu wala juróomi waxtu yoo xam ne yonent baa ngi taxaw benn place di ñaan borom bi subhanahu wa taala di toroxlu ci kanamam loolu it kon nga la waay doomu aadama sa borom foo toll war nga koy ñaan waaye nga la waay bisu arafa xoolal ana lan ngay jagleel say ñaan toogal une heure de temps di ñaan toogal deux heures de temps di ñaan toogal loolu gën a màgg heure yàlla yàlla wërsëgal ci bëccëg bi ngal la waay ngay ñaan la nga xam ne nii moom mooy yiwu adduna di ñaan la nga xam ne moom mooy yiwu alaxira yonent bi alayhi salaam daa nañu wax ne li gën ci loo xam ne ñi ngi koy ñaan li gën ci li nga xam ne ñi ngi koy wax maag yonent yi nga xam ne ñoo jiitu woon mooy kaddu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir loolu li muy firi mooy ay yàlla kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom yàlla moomu amul benn bokkaale mboolem moomeel gi ci loxoom la nekk moo ko moom mboolem cant yi ci moom la nekk ca moo am kàttan ci lépp mbokk yàlla moomu nga xam ne moom nga taxaw ci kanamam yow même bu doon da ngaa yem ci ñaan googu di ko tagg na ko yaa moom lépp yaa san lépp kenn amul xiiwal ku dul koo ca jox loolu mbokk ca la gën jaa màgg ci ñaan la borom xam-xam yi di wax ne kilifa gu màgg dëgg ña nga xam ne ñooy jege ñaale ya ko yaakaar suñ ñëwee duñ ko ñaan dañ koy tagg rek masalan boo ñëwoon dëkk bu mel ne Sénégal ci aada yi am am fi da ngay gis koo xam ne bu amoon aw xew li ñuy tudde ab géwlu juddoom bu ñëwee du ko ñaan day ñëw rek commencé di ko tagg di tagg ay maamam su ko defee mu yëkkati jox ko kon it suñu borom yàlla bokk na la gën luñ koy ñaanee mooy baril di wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir ay mbokk julit bis boobu mi ngi nii di bisu arafa di bisu jéggal waaye di bisu yàlla effacé sa tur ci ñuy nar a dem sawara yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn bis bu seytaane gën a bañ ci at mi lu toll ni bisu sawar ndax li muy gis yàlla di sant malaaka yi ñuy far turu ay jaam ca sawara loolu da koy naqari benn naqar rek la méngool ci moom mooy keroog bi yàlla dindilee yonent yi yonent bi ak sahabaam ca xare badr kon nga la waay ñu war a toroxlu ci kanamu borom bi ngir yàlla baal ñu suñuy bakkaar waaye yàlla génne suñu tur ca ñu nar a dem sawara ca àllaaxira ñaari kër dong nga fa am képp ku demul sawara àjjana nga jëm ñu moytu it lépp loo xam ne day dox suñu digganteeg yàlla nangu suñuy ñaan bokk na ci loolu saggan di ñaan ak sa làmmiñ fekk sa xol mi ngi ci leneen bokk na ci loolu mbokk julit lekk lu xaraam bokk na ci loolu di tooñ doomu aadama yi ak di jéggi dayoo di ñaan loo xam ne nii ñaan yu xaraam la mbokk bi su arafat mi ngi nii sahabatul kiram màggaloon ko lool bokk na ci luñ ko daan def mooy génne ay sarax yu rëy rëy rëy def ay jaamu yàlla yu rëy rëy bokk na loo xam ne nii nettali lañ ko kii nga xam ne mooy hakim ibnu xizaam nekkoon na koo xam ne nii mbokku xadija la woon soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yaataloon na wërsëgam da daan def at mi fu mu gis ab jaam muy jaay mu jënd di dajale di dajale ba am lu jege téeméeri jaam su demee gisu arafa dajale leen ñoom ñépp bu ñu taxawee ba jant bi waaj a so mu ne leen dem leen yéen ñépp gorel naa leen su ko defee mbooloo mi nekkoon arafa daal di kabbar daal di màggal yàlla da ko ay yàlla yow yaay borom yërmande ju mag ji sa jaam bii di hakim ibnu hizam goreel na ay jaamam ay yàlla yàlla nañ ñu goreel ci sawara ñoom ñépp ñu ànd di jooy ci dañuy yaakaar yàlla nangul na leen ndax mbokk sahabatul kiram melu ñu woon comme ñun ñun jamono tey ku nekk sa visa àddina mi ngi sa biir poche jàpp nga ne dee daw nga mën a tey tabbi aljanna ragal lu ñu bëggulu bàmmeel ragal lu ñu bëggulu sawara jox nañ ci ay garantie yu wóor wóor yoo xam ne nii amul problème bu ñu dee rek àddina lañ jëm waaye ak a safaanoo woon ak sahabatul kiram ñoom fuñ ma saan toll ñi nga daan toroxlu ci kanamu borom bi subhanahu wa taala kii nga xam ne muy abdullah ibnu ba ibnu mubarak mooy kii docteur mouhamad loo turé tudde jumaam jël ci pikin nee na daje naag sufyaanu sawri ci ñi xam tuuti ci lislaam mu doon ko boole woon bëri xam-xam waaye bëri jaamu yàlla nee na daje naag moom ci arafa nee na maa ngi ñëw maa ngi ko gis mi ngi sukk di jooy ay heure nee na mu ñëw ci moom na ko ay imam sufyaan kan nga jàpp ne mooy ki texee di ci mbooloo mi mu ne xanaa ko jàpp ne yàlla du ko jéggal kooku ne mooy ki texee di mais ba mu amee yaakaar bu rëy ci ne yàlla dana jégal waa arafa ndax taxoon na ma nga jaaxaar rek dinaan ay baasoom ak lekk ay ba ay ay banaana laa xam ne ne yàlla muy jéggale mooy yërëmaate waaye nag yàlla mi ngay jéggal ñay jéggalu yàlla ngay yërëm ñay yërëm tulu looloo tax ba julit foo toll del jéggalu sa borom waaye del toroxlu ci kanamam di ji di ah rëccu la nga xam ne defoon nga ko ci ay ñaawteef ak i bakkaar ay yéen mbokku julit bokk na loo xam ne nii dañ koo war di baril ci fukki fan yi nga xam ne moom la ñuy dund yépp waaye rawatina nag buñ demee ba bisu arafa taxaw su boobaa war nañu yokk suñuy zikr ci gannaaw julli la ca baril di ko baril allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd loolee da ngay gis ne lu bari ci borom xam-xam yi dañ naan da ngay commencé ca fajaruk arafa ga ba baa ñetti fan ya nga xam ne ñoo topp ci la nga xam ne mooy tabaski ga loolu comme ni nga xam ne nii nañ ko noonu lañ ko solo ci lu bari ci sahabatul kiram mbokk gannaaw ngëneelu arafaat yooyu nga xam ne jël nañ ci lu tuuti ngir temps bi nañ xam ne it gannaaw bisu arafa am na bis bu mag bu topp ca gannaawam ca mooy bisu tabaski bi nga xam ne mi ngi am ajjuma ji di ñëw mbokk julit am nañu ay xabaar yu leer yu jiitu woon ci ne waa makka ñoom ña nga xam ne fa la yàlla yóbbu ñu war fa aj makka nga xam ne képp kuy wóor arafat yaa ngi koy méngeeg arafatu makka da ngaa xam ne julit ñaa nga taxaw arafat man munumaa taxaw arafat ma ne kon naa wóor tabaski googu it mooy la fa ibrahima defoon waa makka dem di ko feddeli yow mi nekk ci foo mën a nekk sunna sant la nga ànd ca waa waa makka kon warul woonu doon problème ci heure buñ demee ba waa makka décidé ne bis bi mooy arafat julit ñépp ne bis bi mooy arafat bis bi mooy yowmul hajjul akbar ca mooy tabaski julit ñépp jàpp ne bis bi mooy bisu tabaski waaye bokk gannaaw loolu bokk na loo xam ne ñaari en école la ci borom xam-xam yi benn école bi mooy ñu jàpp ne weer yi fu mu feeñ ci àdduna bi dañoo war a ànd ci julli tabaski wala wala korité beneen école bi mooy ñu jàpp ne il faut nga xaar ba mu ba mu feeñ ci sa région na am waaye mbokk yàlla def na ci talaate ji ñu paase ñu doon séntu séntu bu njëkk nga xam ne lu bari ci ñiy joxe xabaaru weer balaa gee jot sax nee nañ weer yi feeñul samedi mooy tabaski te yàlla mayoon ñu diiru juróom ñeenti fan yoo xam ne mën nañ ci càmbar ga pour wut ci ay information loolu mbokk di njuumte boo xam ne bu rëy la waaye mouvement bii di mouvement alfalaax ñoom day li nga xam ne mooy alxamisu démb ji daje nañu dajale xabaar yi nga xam ne jël nañ ko ci réew mi yépp gis nañ ne weer wi feeñ ne fii ci Linguère ci xabaar yoo xam ne yu wér la yoo xam ne nii ah doyloo nañ ko gannaaw ba ñu wéri ni weer yi feeñ na ci Maroc feeñ na ci Burkina Faso feeñ na ci Mali gi sës ci ñun te la nga xamee ne waxuma suñuy maam ak maam mais suñuy bàyyi loo xam ne ñun ñii bëri ci waa jàkk ji fekke nañ ko Sénégal ñaata yoon la tabaski ngir weer yi Mali la feeñ ñaata yoon la kori ngir weer yi Mauritanie la feeñ ñaata yoon la julli ngir weer bi sax dem na ba Niger la feeñ kon la chaque mbokk julit weer wi feeñ na Makka feeñ na ci dëkk yi ñu wër am nañ xabaar yu leer ci loo xam ne ak neexoon waa commission nationale ak képp kuy dem ci commission nationale ak képp kuñ naan appelé général nga nga jokkoo woon ak ñooñu nga xam ne ñooy mouvement al falah bi def seen déclaration boobu ne am nañ xabaar yu wér ne feeñ na ci Linguère ngi leen ñu dellu gannaaw bañ a xañ julit ñi xéewalu bisu tabaski ñu rey ci seen seen xari tabaski loolee mbokk mi ngi noonu ala kulli xaal ñu xamee ko noonu alxames mooy arafat aljuma ji di ñëw moom mooy tabaski tabaski boobu mbokk julit lan ka mandargaal suñu borom nee ne xeet yi fi jaar yépp may naa leen occasion bu ñuy jaamoo yàlla ci bàyyuma yi bàyyuma yi yàlla xiiwal ñu ñu ci lekk guddeeg ba cëkk suñu borom yàlla may ñu ci occasion ñu man ko ci rendil ngir jaamoo ko yàlla loole am na lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne sunna la bu ñuy feddali lan mooy sunna bu ñuy feddali mooy sib nañu bañ nañu julit bu ko man ba pare bañ koo def bal am na ñenn ci ñoom sax ñu ne loolee farata la bépp julit bu mën a tabaski tabaski woo ku ku mel noonu dafay am bakkaar ndax bàyyi na farata ala kulli xaal suñu borom yàlla tëral na ko def ci tuyaaba ju rëy même bu dul woon ak farata la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ñu ne lépp loo xamee ni nii nekk na ca xarma béjjén ya karaw ya weya lépp lu mën a doon tuyaaba lay doon yowm alqiyaama la nga xam ne moo ciy sunna mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li abi ayub al ansari nettali nee na kër gu nekk day daa lañ fa rey benn gàtt mu nekk benn mandarga ci lislaam mooy kër gu nekk ngal la wàññi fexe ba rey fa benn gàtt leneen lu ñu faray loolu ay ngëneel la ñuy dabu waaye la nekkoon sunna mooy kër gi téeméeri nit ñoo fi nekk benn gàtt doy na leen loolee même suñu borom yombal na ci loo xam ne du aaday Sénégal waaye juróom-ñaari kër mën nañoo cotiser jënd benn nag comme ni ñu mën a cotiser jënd benn gileem ca ñoom juróom-ñaari kër yépp dañu am tabaski amma bu dee xar wala béy moom kër gi benn xar lañ koy jagleel amma ña fa nekk lu ñu bëri bëri yool ba dana leen doom du leen yóbbaaleen mbokk la nga xam ni mooy ay jëlee ki nag sénégalais duñ ko bëri tabaski waaye ala kulli xaal su doon tene ne lii nga xam ne ni moom mooy gileem dañ naan fokk mu dem ba am juróomi at li nga xam ne ni moom mooy nag fokk mu am ñaari at yu mat sëkk ba dugg ca ñetteel ba amma bu dee bëy fokk atam mat sëkk mi ngi noonu ba mu dugg ca ñaareel ba amma bu dee xar borom xam-xam yi am nañ ci tuuti juyoo am na ñu ne xar bi mat tabaski mooy bi mat un an doonte ne am na ñu ne bu matee juróom benn weer rek mat naa tabaski lii mbokk da ngay gis ne moo aju ci jaamu yàlla gu rëy gi nga xam ne moom moo nekk suñu kanam suñu borom yàlla yëpp xamal ñu ne soxlawuma yàpp wi soxlawuma deret ji xoolal la ca sa kattan man nga def ko sa doole ngi toll ci cinquante mille demal jël xarum cinquante mille bu la yàlla maanee nag baaxe la ba nga mënoon sax jënd xarum mën na salaan deux cent mille peut-être wala maximum xëy na trois cent mille peut-être ba sa doole yeggee yaa xam am na ci nag loo xam ne yàq la mbokk ay xar yi six cent mille huit cent mille neuf cent mille loolee ak yàq la am na lu teewoon nga jënd ca benn xaru deux cent mille bu rëy rëy la ca def nga jënd ko ay tabaski sarax ko ñu amul tabaski wallahi looloo gën ci yow loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax amma nag borom kër bi nga xam ne yàlla dogal na tabaski jot na ca amul lum tabaski na xam ne day bu dee tuyaaba moom am na ko xëy na nag mooy lijjanti lu mu bégale waa këram waaye bu dee tuyaaba moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam tiim na ñaari kuuy yu mag yu weex yu tolloo mu rey benn bi ne yàlla bii day maa ngi ko jagleel muhammad ak njabootu muhammad muy njabootam beneen bi mu rey ko ay yàlla kii day jagleel naa ko képp koo xam ne amul tabaski ci sama xeet ca loolu la chàkk ne day sax ba ila yumi din ca mooy bépp julit bu amul lum jëndee tabaski bisu tabaski am na yoolu tabaski loolee kon mbokk mooy la nga xam ne nii mooy la gën a am solo ci mbir mi mu xam ne mbokk jaamu yàlla la di ñaari jaamu yàlla yu màgg yu ñuy def ci bis bu màgg boobee benn ba mooy la nga xam ne moom mooy julli beneen ba mooy la nga xam ne moom mooy rey amma bu dee ne jàpp nga ne kat man kat kër gii ma nekk su ma fi reyee ci bisu àjjuma bi mën naa jur fitna falillahi alhamd suñu borom yàlla ubbil nañu ak yaatu yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam nee na tabaski ak ayaamu tashriq ya ca topp yooyu yépp bisu rey la man ngaa rey àjjuma man ngaa rey samedi man ngaa rey dimanche lii mboole mi borom xam-xam dëppoo nañ ci am na sax ñoo xam ne dañ ne ah kay altine la ñu sax ca la bokk te mooy bisu tabaski bi ak ñetti fan ya nga xam ne moo topp ci gannaawam doonte ne maliki yi ñu ngi ko yemee rek ci ñaar ya topp ci gannaawam kon nga la waaye demal julli ji ci bisu it ba bu dee ne man ngaa rey sa xar loolu moo la gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee ne bisu tabaski kenn defalul yàlla lu yàlla gën a bëgg tuural ko deret bu dee yàlla rek a tax ngay def amma bu dee ragal nga fitna it na ma la ko waxee mën ngaa bàyyi ba ca suba nga nga ànd ak ña nga xam ne ragal nga seen fitna doog a rey la nga xam ne mooy sa xar kon mbokk julit ñaari jaamu yàlla yu màgg mi ngi nii teew suñu kanam insha allah bu ñu fa yàlla yóbboo ajjuma ci 9 heures fas yéene nañ taxawal fii jullit it ñi ngi ñaan yàlla na yàlla nangul ñu nangul ku ànd ak ñun ak nangul it koo jàppale ngay julli ci gannaaw ba ndax ñi ngi jàpp ne xëy na buñ ko deful it la tax mooy dana dañ caa am lu leen doyul waaye xëy na defuñu ko ngir juyoo ak seen borom ñu fàttali ko it ne la ñu waxoon ci xoddo bu jiitu ba ñi ngi ci nii ci biiram muy fukki fan yi gën a màgg ci at mi tey jii yàlla dogal na mooy ñetteelu fan ci fukki fan yooye ajjuma ji di doon lu ca màgg lool ca mooy même bu dul woon fukki fan yi lu màgg la amaa nag bu duggee ci biir fukki fan yi loolee day nekk màggaay ci biir màggaay bisu tabaski bi it noonu la demee mooy même bu dul woon bisu tabaski lu màgg la amaa nag mu dëppoog ajjuma encore loolu day nekk nuurun ala nuur leer goo xam ne ci biir leer la yal na yàlla subhanahu wa taala déppee lañu ak lépp loo xam ne dañuy jural ngërëmam yal na yàlla dox suñu diggante lépp loo xam ne dañuy jural meram yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu aafiya yal na yàlla booleel ñu la nga xam ne mooy suñuy xol yal na yàlla nangul ñu suñuy jaamu yàlla yal na yàlla teggil jur yi nga xam ne dañu nekk ci tiis ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf nawet bi ñu nekk yal na yàlla subhanahu wa taala barkeel ko def ko nawet ci jàmm def ko nawet ci xéewal yal na yàlla rafetal suñu mucc defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin